wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat bismillaahi rahmaani rahiim barke borom di ñëwaat di dellu di santaat yàlla bu baax ci liggéey bi ñu nekkoon muy liggéey Tuuba ca kanam di sant waa Tuuba ca kanam yëpp ñoom itam association électricien de Touba ñu nekk ñëpp ci biir ñu ngi sant ñëpp ñi teew ak ñi teewut ñi teewut am na yéene teewit am teq-teq ñoo ngi leen sant bu baax di dellu di soññeewaat rek nañ ko waxee woon keroog euh, luy door a tàmbali ñëpp gën a jàpp te gën a góorgóorlu te xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa amul retraite toujours da nga ciy nekk ba fekk suñu borom di jël suñu roo yàlla na yéex suñu borom doolu ñoo kàttanal te wéral na te yokk suñu xel. ba lépp lu Touba bëgg ci courant ñu ñu mën koo def rafet nañ ci njort euh, waaw ci wàllu bâtiment bi moom tiborance yi nekk ci kaw dugal nañ ko yëpp lu jëm ci lumière yi ak climatiseurs yi biñ noppee tamit tam wàccewaat nañ ko ci suuf fu contact yi war a nekk ak yëpp ba raax ko ba noppi di xaar ñu kuule ba raax ba noppi ñu ñëw ci deuxième étape bi muy passé fil yi loolu mooy deuxième étape bi su peinturé ba noppi ñu door a ñëw monter sa appareil yi